Messieurs, je m'en vais la situation de la maladie au Covid-19. Le mercredi 15 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats virologiques ci-dessous. Sur 227 cas réalisés, 15 sont revenus positifs. Il s'agit de 14 par nos services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 Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect scrupuleux des mesures de prévention individuelle et collective. maa ngi ñëw di leen jottali communiqué numéro 45 bi nga xamante ne ministère la santé l'action sociale moo koy joxe. ci bésu tey bi di àllarba fukki fan ak juróom ci weeru avril 2020 ministère la section de la santé et l'action sociale jot na résultat yi ma leen di bëgg a jottali ci ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar test yi nga xamante ne réalisé nañ ko fukk ak juróom ñoo ci dellu si positif ci yooyu am na fukk ak ñeent yu nga xamante ne ñu ngi leen di tuddee cas contact mooy yi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeykaay yi ñoo leen di saytu am na tamit benn cas bu ñu tuddee cas bi nga xamante ne dafa jóge ci transmission communautaire juróom-ñaari malade yi nga xam ne dañ leen hospitalisé woon ci suñu service yi ñu feebar biñ leen saytoo dellu si nañ négatif mooy wane ne wër nañu euh, wérgu yaramu malade yi nga xamante ñooy des si ñu leen di fej mu ngi ànd ak tan ci bésu tey bii ñetti téeméer ak fukk ak ñaari cas moom lañu déclaré positif fii ci Sénégal ci yooyu téeméer ak juróom-ñeent moom la ñu wax ne tane nañu ñaar ñoo ci génn àddina benn lañ ci évacué ci loolu mu des téeméer ak ñaar fukk ak benn yi nga xam ne ñu ngi leen di continuer di faj ci suñu structure yi ministère la santé action sociale mu ngi ñaaxaat population Sénégal yi ñu doolee fagaru ci li ñuy wax mesure de prévention individuelle et collective mooy lépp loo xam ne moo leen di aar ci feebar bi ñuy wax Covid 19.